ñun Benno Bokk Yaakaar bu ñu bu kan lay doon Macky Sall wala. bu ko bu ko waree nekk ko. wuy lan bu ko waree nekk nekk ko. mais moom moo wax munu kenn munu ko def ñaari mandat intéressé man Birima ah. Ndiaye laa fii jàkkaarloo jox ma micro yi. <laughs> fii Macky Sall doy doy candidat wala soutenu la ñu ngeen koy décider c'est le peuple Sénégal qui va le décider. mais comme ah, ça non c'est le peuple qui va le décider. c'est la constitution si Macky Sall doit être un cas. c'est la constitution je suis désolé. le jour que la constitution ngeen prouver ne constitution warul nekk candidat du ma ci nangu boobaa ba jàll. nañ ko àtte ci ay jëf bu nañ ko àtte ci waxam sax mandat c'est quoi ça yenoon troisième mandat su Macky Sall war def troisième mandat da koy def et sans état d'âme de toute façon Benno Bokk Yaakaar de candidat en 2024 kan la xaw ko c'est pas comme moi moo ko décidé mais arrêtez avec ce troisième mandat y a rien troisième mandat buñ ci def ñu war def gënu leen ñoo politique dàqu leen ñoo politique moomu leen réew mi mun leen mun leen mun leen mun dañuy jaaxle wax ak yéen nous sommes des politiciens comme tout le monde. on peut considérer que Birima nous a donné l'information. non non non non li ma wax. bu ko war a def dañ koy def bu ko war a def def. yéen ñoo man de feneen laa ko bëggoon dugal mais gis nga fi ku baax. voilà nit baax ci réew mi xam li troisième mandat. jur Guinée xam lu mu jur Côte d'Ivoire. yow nga naan bu ko waree def daf koy def. ci réew mi ak fi ñu jóge ñun sénégalais yi ak troisième mandat waroo ko wax waru la. yow. waroo ko wax waru waaw waaw waroo ko wax. tu ne dois pas le dire tu ne dois pas le dire parce que tu sais dans quelles conditions. non arrête. amul arrête. je n'arrête pas yow la ñu war a arrêter parce que ça tu dois pas le dire. tu dois pas le dire comment yow les sénégalais se sont retrouvés dans les rues. yow ak keneen ak keneen ak keneen pour dire non au troisième mandat de Wade. oui. tu ne peux pas Est-ce que ça, ça a brûlé le pays? Peux... Non. Oui. Non. Ah, tu es très bien. On a élections, on a gagné. a des morts. Oh, c'est faux. Il y a eu des morts. Même, eh, eh, eh, eh. Il y a ma man, déglu ma. Malal. Oui. Tu as ta vie, tu as fait de toi ce que en prison quand tu veux, man, ne l'ai pas préféré. su ko yàlla teel a même rek tu as ta vie, tu la gardes pour toi. dama ne li ma wax. tu ne doo téye sama làmmiñ dama ni. la bu ñu ci eggee. buñ ko waree def ñun. si la constitution non sunu benn bokk yaakaar. yéen ñan yow yaa koy yaa ñuy téye si la constitution nous permet de. mais mais mais mais malal malal malal respecte les gens. non mais Birima respecte si la constitution dama dama. non mais mais qu'est-ce qu'il est dama ce que je dis ce que je dis. mën na si la constitution par par si la constitution donne autorisation à Macky Sall mu def ko. man bu def Macky Sall bu def bu def troisième mandat du ma tàggu. tuuti naa ci du ma fekk bu ñu koy waxtaanee xawma li ma nangu mooy ngeen téye mu mouvance présidentielle di leen noote troisième mandat il faut arrêter ça il faut l'arrêter arrêtez nous ça parce que vous êtes des opposants yaa ngi def la promotion de de de de de ñëpp xam nañu ba ngeen toog fii yaa ngi def la promotion de de de de kii comment dire Ousmane Sonko. non je mais je ne l'ai pas fait si notre ami. non je mais je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait tout le monde sait que tu es l'ami du pouvoir. je ne l'ai pas fait c'est pas vrai ce que tu dis c'est pas vrai ce que tu dis. tu es l'ami du pouvoir et je pèse bien mes mots tu es l'ami du pouvoir. et je pèse